Euh, Serigne Cheikh Sarr loolu mi Serigne Mbaye Sarr moo ma nettali nee na ma dañoo julli timis ba noppi mu woolu sama bàyyi Serigne Mbaye Sarr ak Serigne Malick Ndiaye ni leen yéene leen ma dëkk bépp foofu waaye nekk te aju ci man bu subaa naa ko fekk ca pénc ba Serigne Mbaye Sarr jaar ci bii gox naan yàlla nee na bu asamaan setee képp ku ko yaakaar naa na la fekk ca pénc ba sëñ Malick Ndiaye jaar fii naan ki niy defar te ak ëllëg nee na bu subaa ku ko yaakaar naa ko fekk ca penc ma sëñ Cheikh Sarr day nee na ma am na ñoo xam ne nii siin Pastef àgg na ci bés ba ba ba ñu ba ba ndéggaloo la ca penc ma lañ fanaan néguñu sax suba jojoon daa di joxe ndigal moom sëñ Tuubaa ne genn kàddu bu nekk ca digg penc bi ñu jëmbatoon ca kamaata ñàkk ko mu wax ne foofee laay toog ñu tàmbalee ay xer di ko samp ci wetu ndeyjoor gi ak wetu càmmoñ gi ba ca kàdd ga ñu takk ca ay mu ne foofu laay jaar bu ma kenn jéem a jox loxo du ma jox loxo kenn daldi di ne nañu xàjjale nag góor ñi ak jigéen ndax mbooloo mu góor ak mbooloo mu jigéen kat bu ñu dajee jaxasoo ne dañuy wut yàlla duñ ko am ndax yàlla amut foofa ndax góor xalu ndéef la jigéen say boob la saytaane mooy seen ngelaw bu ñu jegee rek saytaane dafa foog euh, doom ba mu des sawara bopp a tàkk moo tax nee na góor ak jigéen jaxasoo ne dañuy wut yàlla duñ ko am ndax foofa yàlla amu fu ba asamaan setee nit ñi di dikk di dikk di dikk di dikk ba fukki waxtu ak benn li tubaab di wax onze heures mm-hmm. sëñ Tuubaa jógee ci biir kër ga yor kaamil bi ci càmm ndeyjoor bi yor kurus ci càmmoñ jaar ci diggante boobu bi mu waxoon dikk ba ci taatu kàddu gi mu féete kàddu ga penku toog wéeru diir bu yàgg suñ Cheikh Sané mat na fu mat na fanweeri nit daal di ne taxaw bëgg naa xool mbooloo mi nu mu toll te du geesu suñ Tuubaa daawul geesu suñ Cheikh Sané yi nee na ma mbooloo moomee de kéemaan feeñ na fa koo xam ne nii ndax pénc ma de fees na dell del dell dell ak mbooloo kenn ku ne yaa ngi sës ci am na jigéen ñu boor am na gone yu ndaw waaye kenn jooyut ci gannaaw ndeyam kenn sëqatut kenn di tislu te naaj bi tàng na ba am na ñoo xam ne ni ñaq nañu ba ñaq wi téye seeni sir ci seen yaram ba sëriñ Tuubaa ne ñokkat wër ci ndeyjoor bi ma dellu siwaat fi mu tàmbale woon ak gaat suuf diir bu yàgg door na ñokkat jóg taxaw na sëñ bay Saar nee na sëñ sëñ Cheikh Saar nee na sama baay jóg ba mu jógee dikk ba jege sëñ bi tàllal loxoom ngir mu seen takk ndeeroog loxo bi ba xam ne moom mi ko daan li muuñu bi sëñ Cheikh bi sëñ Mbaye saa tàllale loxoom sëñ Tuubaa ne ko ana kooku mu ne ko mën a Babacar Sarr mu ne ko del loolu fa nga toog fa tey bis ni ko tey sama kàddu doona juti fépp sëñ Cheikh Sarr daal nee na ma bisub keroog ki jege ko sa réyam sëñ daal bu waxee day mel ni dala tiim mu ne leen bisimilah sun borom moom moo fi yabal Jibril alayhi salaam ci man xamal ma ne ma ñi la topp bari nañu lool ma bëgg nga layow ñoom fii bala noo dem fee lii may wax nag su ma ko waxee yéen ba noppi ci wolof yi ma nàmp kenn ku nekk ñi ma eh, mbooloo mi ma yaakaar ñeenti cër la ñuy xajaloo li may wax bu ma ko waxee ba noppi mm-hmm. ñi mbooloo mi ñeenti cër la ñuy xajaloo ñi ma yaakaar ñeenti cër ñooñu nag kenn ku nekk ba nga bokk yow yaa koy xabal sa bopp du la ko wax mm-hmm. daal ne am na ñoo xam ne nii day nañ ma jox seen bopp di ma liggéeyal di ma jox seen alal lu ma leen digal nu ñu def lu ma leen tere ñu bàyyi boole kook jaamu yàlla bu wóor ñoo ñii day ne leen wóor ne maag moom nin andi fii na lañ andi fi fëy la ëllëg lu ma am na koy bokk muy ñuy jaamu yàlla bu wóor ba noppi di ko liggéeyal di ko jox alal nee ñooñ ñooñu di ci dëgg gu weex tàll la ñu ne bisimilah benn xaaj bi jox nañ ma seen bopp de waaye nag jaamu yàlla gi xaw nañ koo sàggane te it naa nag sun borom ne ne ko di ma liggéeyal ba noppi ala yow ah, di ma jox sa alal mbaa nga di ma liggéeyal ba noppi yow mal xiyaam na nga am awtis loolu gënaluma ba sun borom may na ma duñ dem safara waaye nag jaamu siinu jaamu yàlla dafa des waaye nag ñaan naa sun borom ba lépp lu leen nar a daal ëllëg ne leen dal fii hmm. danañ am fii natt boo xam ne moo weccu la ñu waroon a jaamu yàlla mooy ñi nga xam ne dañ may liggéeyal te seenu jaamu yàlla des bismillah benn xaaj bi ñoom de dañoo wax ne mën nañ yaakaar waaye léegi defaluñu ma dara joxuñu ma dara joxuñu ma seen alal joxuñu ma seen ñax ñi ngi jaamu yàlla nag bu wóor ñooñu kat ci fen wu nëbb la ñu nekk sama digg ak ñoom ndax wax nañ ne ma jox naa jox naa la sama bopp waaye defaluñ ma dara loolu fen wu nëbb la ñooñu bu yowmal xiyaamee ñoog yàlla ñoo xam nu ñu xam def moom mooy mooy fen wu nëbb si diggam ak si digg ak seen tubaab mm-hmm. benn xaaj bu mujj bi dañoo wax ne mën na yaakaar de waaye jaamuñu yàlla liggéeyee lu ma ñoo ñu nag ci fen weex tàll nañu nag bu yomal xëyamee yàlla def ci ñoom seen coobare loolu daal mooy woote boobee sëñ Cheikh Sarr moo ma ko nettali waaw bismillah léegi